mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen émission Kouthia Show ñu am mbégte ak contentement bu mag di gërëm ñi nga xam ne ñooy équipe technique bi fa nekk jiite ci ki nga xam ne nag moom mooy Pierre da Silva yor réalisation bi ah, ca wet ga nag ka nga xam ne nag mooy madame Guissé ma nga ca liggéey ba moom tamit jàpp ñaamuram jàkkaarloo liggéeyam waaye Babacar tamit ma nga ca régie ba di nuyu tamit Bamba ak ki nga xam ne mooy tanoon bu ca son ba ak ñoom Silla équipe bi nga xam ne ñoo fay nekk ñoom ñëpp ñoom toog ña ngay jàpp ci liggéey ba tey nag di altine le 26 août 2013 ñu fas yéene ànd ak yéen ci li gën a fës ci information yi dañuy gërëm ñi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñoom ñoom ñoo ñu wóolu jël seen xaalis di ko dugal ci tele bi ak ci émission bu munti doon ñu ngi woo sponsor yi ñu jàpp seen loxo dugal ko ci télé bi ndax day tax tamit euh, doolee tele bi gën a yokk ñaari ngi nii mooy bés am nañu kóllëre ak ñoom ndax boobu léegi ñu ngi liggéey ñun indi lañ leen beneen boison bu bees bu tudd miso miso nag ci format bi nga xam ne moom laa tuddee format pois lourd maanaam ki nga xam ne day naan te du bugg mu gaaw a jeex na jël bii ndax su koy naan nu muy gën a naanee rek muy gën a sentir ne poids ndox mi ak boisson bi mu ci suuf am na ñam saf na neex na bi ngeen gis ni nag mu ngi tudd passion passion mooy dañ jël ay fruits yu bëri jaxase ko mu nekk passion boo koy naan ak ki nga bëgg seen passionnément amour day gën a yokku deuxièmement am na bi nga xam ne moom laa tuddee taïfine di miso ananas la boo ko naanee da nga ci fekk ay dooñu ananas original yu sa sàpp te nag li ci gën a neex mooy boisson bi kenn defu ci suukar maanaam fruit bi ci boppam mooy suukar boisson bi kon boo ko naanee mënu la indil benn suukar boo xam ne dafay yokk ceew war a dara fruit bi ci boppam bu dee mango la mango bi mooy sucre boisson bi bu dee orange la orange bi mooy sucre boisson bi kon taamu leen bii li ci wóor te wóor mooy damay daaj ji benn bii nag moom mooy orange bi ah. illaaha illallaah waay waay waay miso ki nga xam ne moom moom boisson bi te jël xaalisam jox ñu ko maa ngi koy ñaan ngir yàlla yonante bi bu fekkee ne bëgg na ma gën a xam li muy saf na ma ci yónnee gën ngaa gàtt ñeenti kees bu may yeewoo bu may naan bu tëdd ak bu may may sama xarit en tout cas miso daanal na boisson yi nga xam ne dañ nekk ci format bi ndax saf na neex na Pierre li ñuy def mooy présenter leen programme bi danañ dem ci ki nga xam ne moom may Ahmed Khalifa Niass wax jaa dafay leer génn na samedi ci journal enquête wax ci loo xam ne dafa am solo te lu yaatu la ci wax moom ak Fat Diagne seen diggante Ahmed Khalifa taxaw na ne carrément ku bëgg bëgg na ku bañ bëgg na moom Fat jaañ bokk na ci li koy daaneel danañ ci ñëw na gën ko yaatal danañ dem seeti benn paa boo xam ne ma nga ca Guédé village bi nga xam ne ñoo nekk ci biir Fuuta ñoom nee nañ morso bu xonk dafa xeewi ndax depuis Abdoulaye Wade la waaye ñoom bi paa dañuy jël percal sor ko ndax dee mooy tax li ñu bëgg ak li état bi bëgg ñoom duñ ci nangu liñ koy tëjee nag ñaar na xam ngeen ko surprise day doon waxtu bi ci boppam duñu bàyyi mu noyyi ñun ñooy gaasi kawam Pierre may ma clip le temps may installé daal toog tey ñu def ko lundi boo xam ne sàpp sa dëggin day ànd ak ndaat saay ci wet gee